société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di bi simila élection présidentielle bi ñu dëgmal ku ca bëgg a bokk xamal ne danga am fanweeri million yu tojul dërëm nii la ñu réew mi quotidien yëgalee caution bi nu jàpp jëm ci booba lépp élection fàttali ni mook bu 2019 baa tolloo waaye fi mu toll nii réew mi ne daa mel ni gars yi déggoo nañu ci caution bi ndax coow la daan lëmasu ci caution saa suñ dëgmalee élection présidentielle réew mi ne dégg gunu ko démb ba Antoine Diome jàppee caution bi ci fanweeri millions ak léegi le soleil gannaaw ba mu waxee ci mbiram caution bi gis na ne candidat yaa ngay gën di sakkan ñeel élection présidentielle bi nu dëkkmal ña jël si fiche de parrainage yéene bi ne jóge nañu ci téeméer ak ñaar fukk juróom benn tab ci téeméer ak juróom ñeen fukk Ousmane Sonko mi ñu lànkal fiche de parrainage moom kalaame dina yëf ya ca yoon le quotidien yéene kaay Madiambal Diagne bi dëggal ne Ousmane Sonko dem na ca yoon gannaaw ba ko DGE seppe lànk ka jox fiche de parrainage yéene kaay bi leeral ne ba ngir yëf ya gaaw waral l'indépendant ne Dakar it loola la gis niki Dakar Presse mi ne Sonko nangu wutale mu rek DGE jaar ci kawam ndax ay awkaam déposé nañu référé ci altine ji dogalub juge administratif bi feek ñaari fan lay fës buñ sukkandikoo ci yéenekaay booba yéenekaay bi di source a booba jamono ne ñu tribunal bu Ziguinchor itam ay awkaay Ousmane Sonko daal di nañu fay dem kalaame ji lañu fay joytu nag mooy li nu seppi seenub client ci liste électorale yi ndax démb lañuy soog di jot ci notification bi booba lépp këyit lañu jël yóbbu ko ca tribunal bu Ziguinchor wax li ko waral mooy moom meerub Sigicoor bi ca boobale gox la bindoo foofa it lay wotee ku ko woo doo ko jot kenn it mënta àgg ca moom lii mooy tuuma yi avocat Ousmane Sonko rawatina ak Juan Branco yëkkati woon teg ci ndoddu njiital ordre des avocats secrétaire général bu ordre booba xëy di ko weddi bam set ci les échos Ibrahima Njegéen ne yëguma benn yoon càkkuteef gu jëm ci bâtonnier de l'ordre ngir gis ko mbaa jot ko la avocat usman Sonko ba di wax nag Ibrahima Njegéen nee na seenu nga ñenewu ca waaye fii nee a yëkkati yenn kàddu ci kaw bâtonnier booba jamono recteur bi université yëkkati ay kàddu teg ci kaw Ousmane Sonko waxit ci crise politique ak fitna ga amoon ci université bu Ndakaaru toj yanu fa tojoon Ahmadou Ali Mbaye ci biir bés bi la jour it daw ca lenn lam xalaat ca Ousmane Sonko ki miram ma ngi koy wax le mooy moom xëy di wax ci Pastef ak pexe yi muy lal ngir bu candidat am bi gën a fës te mel ni ku nuy waaja a galgal bokkut ñu mën a am keneen ku jàll wuutu Ousmane Sonko ci élection présidentielle bi nu dëkmal boobale élection dambo ci yor yor bi nee na bu jaaree yoon te leer nañ xalaatul muy yegg ci lu tuur Amadou Ba mooma Vox Populi nee na ànd naak Macky Sall ñu jàkkaarloo kilifay Benno Bokk Yaakaar yi ma la ca yéenekaay ba gën a jàpp mooy pacte d'engagement bu Amadou Ba yéenekaay bi laaj sax ndax charte lam pacte fii muy leer Vox Populi ne daa mel ni diggante Amadou Ba ak Abdoulaye Daouda Diallo moom léegi lépp leer na te nooy nepp ndax ñoo dendoon démb di kaf di ree waxante itam kàddu yu rafet l'observateur dëggal ko nañu sax kàddu yu daw yaram la ak Amadou Ba waxante ca woon démb l'observateur yi tam yeggee ñu pacte d'engagement éthique bu Amadou Ba di la mu diggaaleeg ay ñoñam Macky Sall moom jigéen ñi dana joyanti kuréelu ñiy saytu wàllu parrainage bi ngir Benno Bokk Yaakaar la mu ca jublu nag yéenekaay bi di Vox Populi nee na mooy dakkal mer gi tàmbalee fës ci biir Benno Bokk Yaakaar Les Échos ne ñu gën a mer di parti socialist ba tey fanu ngànkoon bàyyi wunu ko ci biir kaay bi Alioune Ndoye mi ngi sàkko ñu woote nu mu gën a gaawee réunion secrétariat exécutif national maam bu naa ma sàll moom yéenekaay ba candidat wu élection présidentielle bi nu dëgmal Sud Quotidien nee na mooy doublon yi yéene kaay bi ne coowal doublon yi tegaat nañu ko ci taabal ji démb bi DGE di dajeek wooy politique yi waxtaane coppite yi am ci code électoral bi rawatina ak parrainage bi Walf Quotidien ne parrainage booba de ca Yewwi Askan Wa moom bopp sa bopp la ku ni sa bopp nga tal kenn lijjantiwut kenn waa PUR moom laas ne lijjanti nañu candidat te ab technocrate la laas di ñu xamal ne Serigne Moustapha Aliou Mamadou Diallo ngemb mu doon seen mbër ci élection booba yor yor bi feelu ko ne mbër Mamadou Dia ku xool jaar-jaaram yéene kaay bi ne daa ko jox gëdd daa ko nangul it kàngam gi mu doon la tribune moom li ministre Moustapha Ba wax ci koom-koomu Sénégal la mënta nangu gannaaw ba jëwriñ jëne lépp ngi dox yéene kaay bi xëy na sulli jafe-jafe yi góorgóorlu yi jànkonteel te muy màndargaal koom-koom gu wopp waxit ci ñàkkum koppar gi sonal réew mi réew mi quotidien booba jamono la ko jaaxal te mu di ko wax mooy école yu bari yi fees dell ak ndox table banc yu nuy defar te àggagut ak ñàkkum jàngalekat te moo ne l'école ubbi na waral ci biir yéene kaay bi 28 ci 24 heures ne fin jëm baaxul ubbi teg l'école bi syndicaliste yi ne bu sottee dana leen jaaxal ndax maatama nga ne ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent ciy jàngalekat lanu fa war a dolli séeju moom la ko sonal mooy ay abri provisoire sàkket ak yu xeetook moom Louga ñu nemmeeku fa fukki professeur yu manqué ak yeneen i jafe-jafe yu gàllankoor njàng ma ak njàngale ma tax yéene kaay bi joxoñ ubbi teg l'école bu nar a bari jafe-jafe ngir moytu jafe juddoowaat ci buteyu gaz yi moo waral total di jëlaat butey juróom benn kilo juróom kilo yu orange yi sàkku ci loo 28 24 heures yëgal ñu ko yéene kaayub Madiambal Diagne bi di Le Quotidien gis ne fagaru ci la total nekk ngir musiba ba amoon ca derkale te ay bakkan yu bari rot ca ñu bañ koo dundaat dund gu ñoŋ moom la xalif général des mourides bëgg ci Touba waral mu daal di teg ay charte buñ sukkandikoo ci enquête mi ne Serigne Mountakha njàng maak njàngalem diine ma la fas yéene saytu képp it ku bëgg yor jumaa ca Touba faaw nga daal di tënku ci njàngalem Serigne Touba gouvernement bi ànd ca loola buñ sukkandikoo ci yéenekaay bi yéenekaay bi di laas tuddee loola fatwa bu Serigne Mountakha ngir xeex lépp luy ëppal ci diine gi te mën a indi jafe-jafe jafe day combat bi war a dox diggante Zoss ak Ada Fass mën na koo def waaye Zoss mën naa indi mbetteel Aliou Ba moo ni waxee ci biir yéenekaay bi du sunu lamb yéenekaay bi stade euh, yëgal ñu ay jongante yu neex yu nuy xaar ci ñaareelu bëccëgu Ligue des champions bi tey ci talaata ji war dox diggante Naples Real Madrid Manchester United Galatasaray Inter ak Benfica réew mi quotidien nañu Sénégal moom dana jonganteeg Ukraine ci demi-finale championnat du monde bi ñeel ñi